foofu ca Yamoussoukro <laughs> léegi tur bi ñëpp koy wax léegi ñëpp a ko xam. Ah. ndaxte suñu équipe fa la wu. alors Fatima comment vas-tu. di leen nuyu baax a baax waa team After Plus namm naa leen nag dama bëgg ngeen ñëw fi nga xam ne mooy Côte d'Ivoire jóge Côte d'Ivoire fi nga xam ne mooy Yamoussoukro wutali fi nga xam ne mooy Abidjan parce que nag euh, tey match bi donte match couperé la xam ngeen ne Sénégal Côte d'Ivoire c'est le pays moom lañ ko mën a duppee muy li nga xam ne ne match boo xamante ne c'est le choc aujourd'hui des huitièmes de finale Sénégal maanaam Côte d'Ivoire yëpp moom la ñuy nag ñëw nañu stade mais stade bi tey dafa xaw a metti regarde am bi jëlee sama daal yi am bi jëlee sama daal yi jëlee sama daal yi cinq kilomètres avant d'être là gars yi dañu def ay barricades yoo xamante ne kenn xamul lu mu doon mais ay never give up la waa 2STV fu supporter nekk dañ koy wëri pour plonger leen si aujourd'hui l'ambiance du match pour wax leen ne avant le coup d'envoi naka la ko supporter yi nekk donte nag tey on pas accès à l'extérieur d'habitude da ngeen di woon supporters yi naka la match bi di présenté woon n'a pas accès dañu limité tey dañu doon dàq on a fait le tour du stade pour être là fii mooy entre entre supporters yi on n'a pas droit de monter mais j'ai interpellé un de mes grands Cheikh Diagne Diagne wax un peu nu mu gisee match bi Sénégal Côte d'Ivoire parce que nag euh, histoire la dañu naan Côte d'Ivoire Sénégal mos koo gagné mais nag match bi tey marché ndam la loolu la ñu mën a jàpp si supporter yi grand cheikh kaay waxal ma tuuti si si bi ci en direct sur la 2STV may gis supporter yi géré grand cheikh match bi tey dafa am beneen goût Sénégal Côte d'Ivoire daanaka 92 fekke wu ñu ko woon am na ay génération yu bëri yu ñu romb mais ñun histoire bàcc ba tey dañu naan Sénégal mos a gagné Côte d'Ivoire naka nga gisee tey joxante bi

Euh, tout ça reste derrière nous parce que boo xoolee c'est une autre réalité c'est une mmh. autre génération avec d'autres joueurs avec une autre manière en tout cas de de au football te gëm naa ni par rapport ak li nga xam ne Sénégal wane na ko en tout cas dans cette compétition trois matchs trois victoires euh, huit buts marqués contre un but encaissé ba pare wane une constance depuis quelques années euh, clairement le Sénégal part avec la faveur des pronostics mais après derrière pratiquement hmm. éliminé mais ressuscité à la dernière minute euh, ouais. par le Maroc mu des dans la compétition da koy joxal beneen envergure da koy joxal beneen force donc c'est là où se situe à mon avis la compétition vient de démarrer on peut dire bien sûr c'est là où se situe un tout petit peu le danger mais bon après derrière euh, je pense que Sénégal tey bu jouer normalement sur sa vraie valeur def li nga xam ne moom la jot a def fii ba fii nii je pense que ça devrait être normalement un match bi nga xam Sénégal di ci génn donte nag du yomb parce que c'est un public acquis à la cause de la Côte d'Ivoire qui sera là pour pousser et tout et tout mhm. mais bon après derrière le public à lui seul ne suffit pas tellement vrai que gis nga keroog Côte d'Ivoire seen diggante ak Guinée équatoriale ils avaient tout un public derrière mais ils avaient pris combien de buts quatre buts donc euh, espérons que ce sera le cas pour le Sénégal incha allah merci beaucoup grand Cheikh Tidiane Diagne de la RFM dañuy dem ne xoolaat am na benn buvette bu fa nekk ñu doxantu xool un peu les supporters un à un un à un c'est comme ça sur la 2STV on n'a pas accès là-bas ma dajeeg benn sénégalais sëñ bi noo def yaa ngi en la 2STV lan nga gisee match bi tey. ah yàlla na yàlla may ndam xam naa ne du doon match bu yomb quoi. Mhm. mais yàlla na suñu borom defal ñu ndam incha allah xam nga pays organisateur nañuy footballal. te bëgg nañ dem ba final incha allah mais daal wax dëgg yàlla gis naa victoire. merci beaucoup waaw gis naa victoire. ma doxaat ma doxaat ma doxaat si biir bi. gannaaw may ma jus ma naan waaye may ma jus yaa ngi en direct. ma jus ma jus. bisimilah ah incha allah ñëw nañ ni ñu war a ñëwee ndam rek comme d' habitude. incha allah ndam rek ah, comme d' habitude 3-1. voilà je vais partir avec mes parents ivoiriens. mes parents. mes parents. ton numéro d'abord. Eh non, je te donne pas mon numéro. Non, on est en direct. Pas mon... mais, eh, mais tu es en direct là. Ça c'est pas mon problème. Tu, tu es filmé même. Oui, c'est filmé. Quand tu viens d'où tu. Mon mari te regarde même. Oui, c'est pas souci. C'est dangereux. Il était à Abou Diouf. Je lui ai dit qu'on va le frapper. <laughs> on était un peu au bas ensemble. Pronostic du match. Eh, Pronostic du match. Euh, 3-0 comme la Côte ah non mais gars yi ñu ngi may doxal en direct xoolal photo bi jël leen photo bi jël leen photo bi calme-toi. <laughs> c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave. eh ça c'est le charme ça c'est le charme hein. on travaille mais non faut faire doucement. non non non non non non prends comme ça eh yaa ngi ëppal nag yaa ngi ëppal nag je t'ai je t'ai permis de faire un business tu le calmes. Qu'est-ce tu dis par au match Par au match <laughs> Ce soir, on va, la, on va la boîte pour aller fêter. Avec qui Avec toi. Qui Dohan non, qui est beaucoup eh, tu te calmes, Pronostic. Pronostic. Ouais. 2 pour la Côte d'Ivoire Jamais. Pourquoi jamais Jamais. Non. Gis ngeen ko en direct lii mooy direct nag. monsieur je vous dis papa vous allez bien. pronostic du match. pronostic je souhaite que la Côte d'Ivoire gagne 1 À zéro. Côte d'Ivoire gagne combien À zéro. À zéro Oui. But de qui euh, Crasso. Mais le Sénégal est plus fort euh, À ce stade de la compétition, euh, il euh, y a tellement d'enjeux que bon, ah, on ne peut pas dire quelle est l'équipe la plus forte. Je pense que bon, euh, bon, je crois à la victoire de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Maman Africa. Euh, maman, Maman Africa, da nga ñëw indi lu spécial. indi ay fulaar man sax jox na ma ci fulaar yi madame Ndiaye fan nga jox ko ci fulaar yi. waaw day am. dafa doon sama maman bi fulaar yi. alors muy nii jox ko a ngi ah, après foog nga def ko waaw def ko foofu la et dinañ ñëw Sénégal incha allah féete ko ensemble donc euh, tey Fatima dañ ñëw pour jël euh, victoire bi incha allah ah. ci kattanu yàlla ak Seydina Mouhamad ñu ngi sàkku ci jëmm sëñ Touba alaaji Fall ala nu mu alaaji ñoom ñëpp quoi ñu dimbale ñu ñu ngi ñaan di sàkku seen ñaan Sénégal am ndam tey ci match bi incha allah ñun ñëpp ci kanam incha allah waaw waaw gis nga ko non bosam jox ko ko ah ne <laughs> xam ngeen xam ngeen bi euh, am lu spécial mooy tëgg ah. Ah. dañoo ñëw ñoom ak lu bees rek ndax ñun ku ne xam na ne ceebu jën mooy suñu baaxu maam waaye nag dañu ne lekk aceke kon dëkk bi daal képp ku daal tey yaa ma sukuroo wax. suural aceke. doo lekk aceke. buñ leen duñ ko lekk. buñ leen dóoree après match sax duñ ko lekk. ndam li dañ ko yóbbu Sénégal incha allah loolu la ñuy ñaan yàlla may ndam. merci beaucoup quand c'est parfois sur la 2STV nous sommes en direct avant le coup d'envoi Sénégal Côte d'Ivoire madame da ngaa xiif. waaw damaa fekkee. da nga dox dafa bëri. trop non non match bi. bon match bi euh, tey moom yaakaar naa ñu def benn 2-0 quoi. 2-0 ma mu ngi laakatu mu papa vous allez bien. je vais bien mais et vous. Euh, score du match pronostic. mais sera un match difficile je pense. Euh, et puis voilà on va les gagner euh, de tirs Sénégal. Sénégal oui. merci je vous en prie. je avec un autre frère ivoirien. papa ça Ça va superbement bien. Vous êtes en direct sur la la première chaîne privée du Sénégal. OK. Un mot sur le match aujourd'hui, Sénégal-Côte d'Ivoire, le choc aujourd'hui des huitièmes de finale. Effectivement, euh, je sais que la Côte d'Ivoire va gagner le Sénégal. Ah mais non, je suis d'accord. non, je Mais l'expression cabri c'est quoi? Non, mais 2-1, c'est le Nous sommes ressuscités. Oui. Effectivement, nous sommes pas peur de couteau? Non, n'a pas peur de Non, mais Pour le Sénégal. Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et là, je continue avec une belle dame. Madame, vous allez bien C'est une chaîne sénégalaise qui est venue pour la CAN. Score du match Pronostic oh, Je vais être euh, <laughs> minimaliste. Je vais ah, pour le Sénégal. 1 eh, vous supportez le Sénégal <laughs> Non, je pas le Sénégal, mais j'essaie d'être réaliste. <laughs> On est le plus fort, non vous, jouez bien. Cette CAN, vous jouez bien,

Merci beaucoup. Là, on va continuer un peu d'avoir, d'essayer d'avoir d'autres, d'autres Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas droit aujourd'hui d'aller à l'extérieur, mais on va bouger avant le coup d'envoi ici. Je vais chercher des supporters sénégalais. C'est ça le charme du direct, c'est ça la désestérie. Un parent sénégalais, monsieur, venez par là, on va se déplacer. pour le prendre. Vous entendez la musique à l'intérieur du stade. avant le coup d'envoi de ce match Sénégal-Côte d'Ivoire, deux pays frères, le choc des huitièmes de finale. Monsieur, vous parlez français ou bien wolof. wolof Ndiaye laay làkk. wolof Ndiaye laay làkk noo tudd. Sénégal laa jógee nii Mohamed. Mohamed waaw noo gisee match bi. ah match bi kon liñ ko la à chaque fois gagné dem ñibbi waaw yóbbaale coupe bi. ñaata but la ñuy dugal. 2-1. xanaa kan mooy dugal. non xaw ma ko ni mais dañu am penalty daal. dañu am penalty ah en direct nga nekk rek. maa ko wax waaw na leer. penalty ah. VAR day am. Mouhamed nee na ñu am penalty. je vois notre sénégalaise ça c'est notre c'est notre c'est notre